waaw ñu bàyyi la nga nuyoo rek. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. bapak mbokk jullit maa ngi leen dan di leen siyaare. man laa seen jàmm ak seen jàmm. mën nga kan ci Basiru Basiru Sarr mi papa may nijaayam waaye nag mu ngi nekkoon bori marché warank fa lu ndee mu ngi leen liggéey magam bu ñuy wax Tafa Sarr ci ma oto mun sih yi la newoon village yi ci oto vidange waaw ci la newoon ci la doon liggéey ci la doon liggéey bu wàccee ñaari dimanche ci laa ñëw ci xale yi ma ma fi na añee ataay ba tëdd mu dem tëdd donc fii la féete woon ci yow non non féete woon ci man fa li yoon dafa luyoon fii boori ma fi waranga waaye su dimanche jotee fii laa ñëw ci xale yi ñu mm-hmm. ñëw fi ataaya ba pare ba ngoon mu dem kër mm-hmm. bi mu amee ñaata at la commencé moom nag ren la fi kanam yëpp nawet daal bala laal nawet naar am fii ba naar dem nawet yi ren nag mu nawet ci magam bi dafa saar mm-hmm. ay waajuram fan lañ donc ci yow ci yow daal la féete woon daan daanaka yow yaa ko yar. fii non doon ci man de. dafa luye woon fële mais. waaw waaw da doon ñëw ci yow daal. waaw daan ñëw maanaam yaa fi nekkoon waajuram. waaw fii Dakar. d'accord léegi est-ce que nañ xam moom lan la doon liggéey ak ci lan la doon yëngu exactement. oto yi ma wax rek ci la ci la ñu doon jàngoon da doon jàngoon te waroon a paase permi ah. waaw vidange bi la doon. waaw a paase. ay jikkoom mën nga ñu ci wax tuuti. bu baax a baax xale bu baax bi ñu jullee ba ma dem papaam ne la ma gërëm naa ko sant naa ko boobu xàmmee ko tey ah, xar mu ko jox loolu daal la gërëm na ko nag na ko gërëm na ko lool sax waaw. ay waajuram ko. waaw ah, xam na kay xam nañ ko ah métti métti leen lool métti leen lool. ni mu circonstances yi mu génnee àdduna ñu bëri ñëwaatuñu ci maanaam eh, li waral mu mu mu génn àdduna tey eh, nan la demee léegi am na ñu ne sax da doon jéem a jéggi tunnel bi nga xamante ni ñu bëri fi ñu ko fi ŋaañu ba far daal di daanu tarxis daanu. ni mu génnee waaye xam naa ne daal dafa sax daal oto ba dafa pam mu mu bàyyi leen foofu ñoom ñaar moo ko beneen rakkam ñu dépanné timis jot mu jox leen ku ne 2000 francs ne leen demee ñibbi ñu ñibbi ñibbi. kenn kaa ngi parcel kenn ki jëm ne ñëw fi ginnaaw daal bi mu nak ba ci téye ba xamal nu daanu na xam naa daal bi ñu eh, toogee ba ay deseer ñu xam jot la laaj ma si amati mu ne ma yónni na doom bi nako demal seeti mohammed ñu ñëw ñu añ doom bam mu de yàgg fa loolu ma di dem fekk leen fa ñu ne amna ko ku amna ko na dama sori nak ci côté ba leen ne man ma ci xaw kan la léegi nag bi bi ma ñëwee ci kër gi ne ne ñu añ kii moom ne du añ sama ah, bi ne moom du def ñu bàyyi ko ñun ñu añ bi ñu añee ba pare ak ñu wax Cheikh ñu ñu génn ci néeg kër gi. ñu dikkee ba ci bopp koñ bi nii lañ tasee sama doom bi ñu wax Cheikh Omar ma leen mu gaa yi muy jooy mu ne ko la xew ñu ne Basiru moo la ñun day làkk ñu dégg. léegi li waral loolu ndox mi la ak tunnel beeg yooyu loolu yàgg nañ ko fi kaas tey est-ce que amoo am am. loolu maa ci maa am accident. Mhm. tabaski daaw laa benn gan bu judd suma kër ma dëkk ma dem ci ay bi da ko tàcc sama tànk def faux pas mënu maa xam ci kër boobu ba léegi mu ngi métti affaire metti métti nañ ñun ñëpp bi ndax baaxul liggéey bi baaxul. yàgg na baaxul. jàpp ngeen ni tamit euh, population war nañ alerter wat parce que yu ni mel war euh, bala yu mel ni am fi tay di fi amaat. moom koy war bu baax sax wa peuple bu kay war nañu jóg marché bu baax war nañ li ñu defal dara baax ci. ka dug mu kàddu ak euh, li nga xamne mom ngay denk ndaw ñi ak ñu mel ni mom ak nga xamne ne tay do ñu fas yene rek fas jom de toppatoo seen waajur yi de len def japp la ki day tay fu mu deme ba sen dëkk. kilifa ñëpp dañ ko kilifa yi dañ ko tànk ndax ku jub loolu ku baax loolu ku gërëm ko kilifaam gërëm nañ seet ci moom ku jub la te baax jub ci ay xaritam waaw neetoon nag moom benn sikk buñ gis ci moom moom baax ne nañu fexe roy ni moom mën nga ñu fàttali ñaata at la amoon ñaat fukki at ak la war ñu ngi lay jaajëfal bu baax 我这这种情况。